julli ci yonentam bu tedd ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dellu jaajëfal Seexna al Xadim akbaru ridwanullahi baaxil Xadim di ñaan suñu borom Mawlana wa taala fayal na ko noo ngi fas yéene di insha allahu taala ci sunu jataayu jigéen ñi nisaa il li nasihati l muminina wal mu doon jataay boo xam ne jataayu fàttalente la waaye jataayu laayenti biir la sunu jotaay bii paase noo ngi ci téere bi ñuy tudde axiru euh, zamaan di jàngat tomb yi nga xam ne moo ci nekk di ko jéem a méngale ak alquranul karim ak xadiisu yonent bi alayhi wa alihi wa sallama ak feneen ci waxi seyxunal xadim alayhi akbaru ridwanullahi baaxil xadim mu mel ni téere bi am solo gu mu am solo ak bind yi nga xam ne tomb yi nga xam ne moo ci nekk te mën a yaatu lool mu mel ni méngoo ak jamono ji nga xam ne ci la nekk ci te mooy jamono yi axiru zaman nekk jamono joo xam ne ñoo ngi ci mujjug jamono jataay bi passé noo woon ci fi muy jàngale ci màggal màggal mag wekk mag ak wekk euh, kilifa naka noonu yërëm koo xam ne jirim la waaye yërëm ndaw comme ni nga xamee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la waxe ne yërmande yàlla du deñ di wàcc ci sama xeet li fekk ndaw ñi ñi ngi wekk mag ñi mag ñi di yërëm ndaw ñi waaye bokk na ci itam fi muy jàngale di joxe joxe te yàlla tax wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu suñu borom nee na du ngeen joxe dara lu dul ni dama leen ko wutalal sëriñ bi it leeraloon nanu képp koo xam ne daf leen dikki di leen laaj di leen laaj lu ngeen am te man koo joxe te am ca xol bu tàllib joxe ko na ngeen ko jox ba mu doyal sëkk te bu leen denc alal jëme ëllëg ndax suñu borom subhanahu wa taala moo gàddu wërsëgu jàmm bi wa kullu man wafaaka littidaa'i fasbuba alayhi mataral ataa in kunta za xinan wala taxtakir maalan ilaa xadi li xawfi dar li annahu subhaanahu wa taala jalla ataaka zaaka almaala fa haysu ma kasarte fihi talafa li wajhihi jalla ataaka xalafa kon kooku lim lay na mooy joxe te yàlla tax li ngay joxe te mu bañ a nekk lu tuuti ndax mataral ata la wax muy taw may muy yullil ko taw may mooy jox ko lu doy sëkk jéem yor nga lu doy sëkk loo mën a joxe bokk na ci itam di delloo tooñaange yi tooñaange yi waxoon nan ko ak la nga xam ne moo ci aju ci euh, ëllëg yomal xiyam ki dikk ca fa nuy fayantoo jëf ya mu indi jëf yu bari lool waaye tooñoon na aw nit jëwoon na diw ŋàññewoon na diw ba mu àgg ñu jël àqi ñooña di ko jox di ko fay ba aw yiwam jeex ñu jël ci aw ci ay bàkkaari ñama am noon di ko sëf loolu mooy digg digg ki perte kon raddul mazalima ilal arbaabi xabla xudurikum ladal xisaabi naka noonu di bala balaa yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala def ko def koy teg jàmm bi ñëwoon nañ ci ni suñu borom dana nemmeeku ab jaamam bi nga xam ne daf ko bëgg te jàmm di jihaat ci yoon yàlla ci ay balaa inna allaha bil balaa isatuhahudu li kulli abdin muminin mujahidin naka noonu di sant xéewal ak suñu borom subhanahu wa taala la in shakartum la azidannakum ñëwoon nañ ci lu bare bare naka noonu moytandiku iñaan moytandiku bañante waaye moytandiku reetaane waaye moytandiku nay naka noonu di ca mbooloo ma suñ boroom subhanahu wa taala dana la defal ay may dana la defal tedd nga dana defal karama moom eh, julli ji ci mbooloo ak la nga xam ne moom la ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci ay mbir yu bare bare ay tuyaaba yu bare bare bare moom julli ji ci mbooloo kon loolu moo nekkoon sunu jataay bi nga xam ne moo jàlloon waaye bokk yi ñu bëgg a teg foofu sunu baaraam ñëw ci benn tomb boo xam ne ñu génn kilifa moo nu ko sant ngir ñu gën cee laayante biir waaye gën cee fàttalante ginnaaw bi nga xamee ne bi mu nga bi nga xamee ne gis na ne lu bare bare bare bare ci nit ñi ñi ngi sàggane julli lool ngir doyadil ko waaye sàggane ko ngir joxe ji ko ca mbooloo ma wala joxe ko ci waxtu wi waaye rawat na nag ñi nga xam ne dañuy bàyyi sax julli ga far benn bañ koo julli te lenn taxul ñu bàyyi ko lu ne dañoo am seen ittee jamono yu gën a far yu leen gën a faral ci ñoom wolif ñu julli wala ñu julli ca waxtu wa wala sax ñu tax ñu bàyyi julli loolu moo tax ñu bëgg dikk euh, ci hamiyatu salaa muy itti ji nga xam ne lislaam jox na ko julli itti ji nga xam ne lislaam jox na ko julli mu bëgg ñu soññantewaat foofu waaye laayante fi biir waaye fàttalente ci insha allahu taala kon jataay bi foofu lañ koy jëmale ginnaaw bu jàlle ñu dikkaat fi ñu tegoon sunu sunu sunu sunu loxo insha allahu taala ñu continuer bokk na ci solo julli ak ittewu itte gi nga xam ne moom la ko lislaam itteel yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dafa wax ne lislaam ñu ngi ko tabax ci juróomi kenn ba ci njëkk mooy seere ne amul benn buur bu dul suñu boroom subhaanahu wa taala waaye moo yónni yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñaareel ba mooy taxawal julli ñetteel ba mooy joxe asaka ñeenteel ba mooy xaj màkka juróomeel ba mooy woor weeru koor julli nekk ci ponk boo xam ne ponk bu ci mënta ñàkk la ndax asalaatu imaadu diin julli mooy kenul diine koo xam ne yaa ngi taxawal julli yaa ngi taxawal diine waaye koo xam ne doo taxawal julli nelaw yaa ngi jëm ci màbbu diine wax na ci beneen xadis ne ëllëg yowmal xiyaam li ñuy jëkk xool ci jëfi jàmbi mooy julli bu julli baaxee lépp rekk baax waaye bu julli baaxut dara du baax kon julli lu mat a sàmmonte la lu mat a lu mat euh, wottu la julli ak saxam ci lislaam ak fonk gu ko suñ borom subhanahu wa taala fonk googu moom waxa waxa wax waxaale sut ko waaye kay xanaa ki nga xam ne day doydul julli ba tax sax mu bañ a julli ngir am lu mu ittewoo lu ko gënal julli o xam liggéey la wala moo xam ci lu nekk ci jamono wala leneen ak leneen loolu moo tax loolu moo tax ñuy wax waaye julli julli gu mu sax ci alquran sax ko ci sunna sax ko ci dubbug boroom xam-xam yi kooku moom amul werante euh, kon ki nga xam ne day doy di julli wala mu yeexe julli kooku day toggoo bàkkaar bu màgg màgg màgg màgg euh, sëriñ bi mu ngi wax waalam bi anna salawaatil xamsa faridatun xataan wuxiita lobsa biddikri wassunnati wal ijmaa wa man yakun minha ala imtinaa'i jahdan laha fa huwa kal murtaddi fil hukmi yustataabu jiimul addi dafa wax ne julli farata la ju sax ci alquraanul karim ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak dëppoo boroom xam-xam yi koo xam nag danga lànk bañ a julli ne na kooku moom cib àtte dan koy àtte àtteeb ku wedd yàlla mooy ku murtat su boobaa nag des na ko tuubloo bu tuubee ñu bàyyi ko waaye bu tuubu dañ koy rey kon li ngay gis foofu mooy importance boo xam ne julli am na ko itte itte goo xam ne solo soo xam ne julli am na ko ak la ca aju yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ne koo xam ne danga bàyyi julli te yaa ko tey nee na kooku weddi na wedd gu leer naññ gu bir man taraka salaata mutaammidan faxat kafara jëhrën ki nga xam ne dafa bàyyi julli te doy di julli rekk moo tax mu bàyyi ko te moo ko bàyyi ci ak tayefam doyal di ko xañ na dafa nekk ci aw xew wala dafa nekk ci mbir boppam wala leneen ak leneen lu ko nuru ba tax mu doy di julli ga lànk bañ ko julli na kooku moom weddi na yàlla weddi ku leer kon ki nga xamee ne bu nekkee ci aw xew xew wa moo koy gënal julli ga wala mu wax waxi julli daal xew wa dafa paase wala sax nag du julli wala ki nga xam ne bu nekkee ci ab liggéeyam liggéey ba moo koy jël moo koy gënal julli ga wala moo julli dafa liggéey ba pare wala sax nag mu far bañe julli julli ga ñooñee day am nan wa'du shadid goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama eh, dig na leen ko ci seen doydil googu nga xam ne moom lañu bàyyi moom lañu doydil julli ngir ñàkk ko julli ca waxtoom ba ndax julli dafa am waxtu inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawquta rawatina sunu bokki lenn ci soxna yi nga xam ne ñoom dañoo doy dil julli lool ndax jàpp na ne julli moom da ngay am dangay am da ngay am tax rek doo dooru julli waaye su amul leneen loo nekk rek loolu moo gën a far julli ci yow moo xam da nekk ci aw xew wala da ngaa nekk ci ab liggéey wala lu ko nuru dem ci ba ci àgg ba ki nga xam ne dafa nekk ci aw xewam daf koy jaral mu faat julli bis bépp lu ko waral ngir li nga xam ne moom la def ci ay bëtam te mënut jàpp ngir mu julli li nga xam ne moom la def ci ay weyam te mënu koo jàppale di ko julli wala li nga xam ne moom la def ci boppam te mënu koo jàppaale di ko julli lépp rek bañ na ndox ma laal ca ndax bu ko ndox ma laalee la ma def mën naa yàqu bay dem di julli ji kon kooku loolu mu nekk loolu moo ko soxal wala muy julli ji mu nekk lu mata bàyyi xel nag ndax alquranul karim mi nga xam ne moo gën a màgg ci lépp les di tiim di ko jàng alquran moo ci gën a màgg boo tiimoon alquran di ko jàng ba waxtu julli jot nga dégg ñu noddu nga jàpp ne alquran ji ngay jànkat lu baax la kon war na laa soxal wulif nga bàyyi ko dem julli ji soo boobaa jàng boogee ngay jàng alquran day nekk loo xaraam ci yow kon nag ana ki nga xam ne moom am lu mu def ci ay bëtam walla ci ay weyam walla ci boppam wala am lu mu solo moo tax mu lànk ba ñu julli ngir doy dil julli ga kooku moom amut aw lay ëllëg yow na a xiyaam ca kanam su borom subhanahu wa taala te xam ngeen ne dafa bokk ci bàkkaar yi nga xam ne moo gën a rëy ci bàkkaar yi mooy yeex a julli ba waxtu wa jàll te amoo lenn ngànt te yooyu mu tudd nekkul ngànt nekk ci aw xew moo xam ngénte la wala ciit la wala lu mën di doon ak xew wu mën di doon nga nekk ca ba tax mu gën laa itteel walif nga joxe ji farataw su borom subhanahu wa taala loolu nekkul ngànt te bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy mooy yeex a julli ba waxtu wa génn euh, doon naa ko faral di misaal jigéen ñi war na ni mën a fonk julli ñëpp war a mën di fonk julli nag waaye nag jigéen ñi dañuy dañ ci gën a julli moo tax jigéen war naa mën a àgg ci fonk julleem dem ba teg nekk ca waañ wa teg cinam ba ak diwam saas ba nga xam ne mi ngi war a rosi mu digg ñu noddu mu teg gi cin la teg ca suuf dem joxe waxtu ba pare door dikkat kunte ak toggam julli jigéen julli gu mu ittewoo gu mu war a julli ak farlu gu ci war a farlu war na koo jaral loolu ndax dafa bokk ci am na xadis boo xam ne jaar na fi jaaraat fi jaaraat fi te duñu dañ di ko baamtu dafa bokk ci bunt yi nga xam ne ci la suñu borom subhanahu wa taala di ubbile jigéen ëllëg yowmal qiyam aljana julli daf ca bokk ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ne almaratu isa sallat xamsaha wa zakkat maalaha wa saamat shahraha wa xajjat bayta rabbiha wa ataacat baclaha wa axsanat farjaha tadxulu jannata rabbiha min ayi baabin shaa'at jigéen bu jullee julli juróomam lépp lu mu nekk lu mu jàpp ba waxtu julli jot moo xam ne waxtu wu mu gën far ci moom mu julli mu tegal dem joxe waxtu wa joxe ko ci waxtoom ndax Euh, julli dafa am waxtu naka noonu su amee alal war ca génne asaka mu génn ca asaka comme ni mu ñëween ci jotaay yi passé naka noonu bu weeru koor dikkee mu woor weer wa lam ca mën a woor mu woor ko lam ca mënta woor mu bàyyi ko su fan weer wa jàllee mu fay ko ndax suñu boroom moo wax ne képp koo xam ne danga am ngànt ci koor na nga bàyyi bu koor ga jàllee nga fay ngànt yooyee kon bul bokk ci ñi nga xam ne dañuy wax ne man duma fayantoo ak suñu su subhanahu wa taala waxi ku réer la waxi ku ñàkk xam na ndax suñu borom mu wax ne na ngeen leb su ngeen paase ngeen fay kon mu woor mu woor weeru kooram waaye su mënee aj makk su amee alal ju mu aj màkka mu aji màkka waaye mu topp boroom këram waaye mu sàmm boppam ëllëg yowmal xiyaam bu faatoo ñu ubbil ko juróom ñetti bunti aljana boo ko ci soob mu daldi tàbbi nga gis ne bum ci jiital mooy asalaatu nga xam ne julli lu am am solo la lu mat a bàyyi xel la loo xam ne lu lislaam jox yitte la kon ki nga xam ne dafa am itte joo xam ne moom moo ko gën a far ci moom mu julli kooku ñàkk xam rek loolu moom moo koy waral kon foofu la ñuy taxawlu ci jataay bi insha allahu taala bu jataay yii di ñëwee ñu gën a dugg ci ahamiyatu salaatu itte ji nga xam ne lislaam jox na ko julli nga xam ne julli feebar sax taxul julli wàcc la ndax am na tudde salaatul murid naka noonu nekk ci fitna sax taxul julli wàcc la ak yi ci aju xañ na jataay yi ñëw des na ko gën a yaatal insha allahu taala dañuy taxal foofu ñaan suñu bu defal ak digg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu سيدنا ففي مساياه لا يرتاب طيار وعوى الملك وذم ذوي الإسلام يوم عدا ميم بي كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار